sëqata maqata sëqata maqata sëqata maqata daan ma bul ma gaañ dandu ma sëqata maqata ooy yaay di yëg di waat di lamba rek di sëqati màcc oh oh god damn it shame on know lii la ñuy fi ñuy bàyyil je dirais même awadi nul qu'il nul à chier awari si boppam wax na ko quoi nga ko wax nee na moom moom xam ne amul talent mënul rab nee na moom xam lan la xam kese mais moom mus na ni amul talent munu rab moom wax na ko quoi wax na ko dem na Montréal taxaw fa ak MC na ko man awma talent mënuma rab businessman laa liggéey xaalis laay def ci kaw gars yi dox sama dox aw ma talent mënuma rab donc pour vampire yi nga xam ne dañuy bëgg a défendre l'indéfendable you know New York Paris Dakar jàkkaarloog waa ji di sëqata mëqata sëqata mëqata baara mbay lekk ci baara mbay sëqata mëqata baara mbay sëqata mëqata baara mbay sëqata mëqata baara mbay wala nga def featuring ak waa ji baara mbay sëqata mëqata sëqata mëqata mu ak ak ak ak bële xaw nañoo jagante ah sëqata mëqata baara mun nga def featuring boobu création PBS com war gars yi ñu mën a kott amuñu mbaam quoi ñu mën a kott amuñu mbaam wallahi la azim boobu gars yi ñu ngi quinze rab bi toll ci ay niveau yoo xam ni non mais moom bëqata bëqata ak sëqata mëqata benn lañ sëqata mëqata te lépp da ko répété nag sëqta mëqta sëqta mëqta yow awa di moo fa digg di bàcce wax na ko quatre fois sëqta mëqta huit fois benn couplet de huit mesures quatre sëqta mëqta quatre moo fa digg di bàcce yóbbul ma làkk bi làkk nii la naa la lii la nàkka la lii la lalla lii la lii la nàkka xanaa sa nàkk dëj la <laughs> yàlla na yeex yee asalaamaaleykum gars yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di tiitaroo ñëpp di leen bëggee yéen it yi nga xam ne yéen a ngi connecté wu you know di suivre euh, live bi démb live bi euh, dafa dafa dafa dafa daggoon donc dañ koy continuer dañ dañ koy continuer loolu moo tax tey mooy suite bi ginnaaw bu mu nuyee ku ci nekk sa tur sa sant man la Black Master Emo the Demon aka Pamo Rhyme aka Lyrical Pending Pandang kii la gën sarik Mr Emo ah bi number one word donc ginnaaw buñ bëggee ñëpp ah leen jaar dañuy yàggale waxtaan bi dañu tolloon ci group whatsapp bu Lord Alaaji Maan Lord Alaaji bu nekkoon bu nekkoon bi bu nekk daara ji daara ji family ñoo créé daara ji family eh, lor alaaji maan bu daara ji yi nga xam ni eh, am na ay relation yu nice di woowante téléphone di déggante aussi muy suivre bu baax live yi ko wax na ma ko ne ma Mollah nalawuma de maa ngi xool lépp maa ngi suivre lépp vraiment amul lan lenn luy daw fii ci net bi loo xam ni teguma ci sama bët di xool donc allah jimaan ma expliqué ma expliqué woon nu mu créé groupe whatsapp bi loolu allah jimaan le téeña allah jimaan allah jimaan ma dafa toog ak soxnaam bu muy seetaan benn euh, genre émission rappeurs yi di jàll rappeurs yi di jàll di jàll di jàll affaire bi gisatul mouvance boobu amoon ku ci nekk da ngay dóor la ngay dóor dem même rappeurs yi sax duñ saaw daatante duñ jàppalante duñ applaudirante du xam nga comme nu mu neewoon mouvement nu mu mouvement quand on parle de mouvement lan mooy mouvement mouvement mooy un une ensemble de personnes buy demandoo ci même direction loolu lañu ñu mouvement kaane yi juumuñu lu tax ñu ne mouvement de mouvement mooy ñiy demandoo ci benn direction ñii bu ñu demee gauche ñee dem droite ñee dem kanam ñee dem ginnaaw loolu mouvement amu fa mouvement mooy un mouvement bu fi ne mouvement rek un mouvement d'ensemble donc mu gis ni affaire bi mouvement bi amatu fi mu toog ak soxnaam di seetaan nee na am lu ko metti ak tamit problème yi affaire xaalis mu ne soxnaam alaajumaan moom ma expliquant ah, pour muy clair mu ne soxnaam yaa lëz maa lay jaar mu ne soxnaam il faut ñu dajale les énergies énergie yi ñu ngi tasaaroo te buñ buñ ko jëmbalee mu doon benn jëmm day am doole mais bu buñ tasaarooy rek doole ji day day jeex nit bu ñaar àndee wala ñett wala ñeent mën nañ yëkkati ab tronc d'arbre bu ñaar ak ñett àndee dinañ doon benn tronc d'arbre mais buñ diviser woo rek day doon branche te damm leen day yomb donc ñu dajaloo mu doon tronc d'arbre bu dëgër boo xam ne du neex a damm buñ dajalewoon ay bant yu benn bant nga damm ko bu ñu dajaloon junni bant doo ko damm donc gis nga mouvement nu mu amee doole mu ne moom Alaaji Maan bu mu xoolee gis ni division mi am ci rab bi très sincèrement il faut xelam dem ci créer groupe whatsapp dajale képp ku nekkoon ci mouvement bi wala ku nekk ci mouvement bi koo xam ne mus nga ci def benn effort même bu dee benn bind texte yëkkati ñu tàccu la nga éveiller conscience bokk nga ci mouvement bi kenn mënu la dindi culture urbaine alaaji maan ne soxnaam il faut ñu dajaloo quoi il faut ñu dajaloo xam naa ni je vais essayer de créer benn groupe whatsapp dajale gars yi parce que déjà gars yi la fekk ñu gisante sax dafa rafet soxnaam ne ko ah bu ma la doon conseillé dama naa la nga génn ci parce que yow xam nga ni li fait la force waaye ñi nga am ñi nga séqal game bi rappeurs yi dañoo naqaree liggéeyal dañoo naqaree defal man de jabaram de ne ko bu ma sañoon nga nekk ci li nga nekk rek bàyyi leen quoi ku nekk kiir alaaji man nee na mu dëgër bopp ne garaawul dinaa ko def parce que moom nitu conviction la bu gëmee benn affaire gëm na ko loot ñëpp loolu lañ ko xamee gars moo tax ñu naan dafa tàng man même chose lañ may jugé dañ kii dafa tàng xeede la dafa bañ parce que loot moom noonu la mel blood fire moo tax muy woo lord blood fire deret bu tàng la yor bu dëggoo rek dëggu na mon ami Sagna bu dëggoo rek dëggu na ci lu mu nekk da koy gëm jaral na ko bakkanam ab joolaa la allah donc jabaram moo mujjee am moo ko mujjee gagné jabaram moo mujjee am dëgg ci moom alaaji maan créé groupe whatsapp group whatsapp bi tuddee ko rap galsen commencé dugal alaaji man di dugal demoon nañ ba rap bi amoo group booy wax bu newuloon ci group whatsapp bi amoo kenn ku ngeen xam ci rab bi bu muy commencé alaaji man dugal na ko dugal ndongo daara ji Fada Freddy ñu ngi ci groupe bi ndongo daara ji mi ngi ci groupe bi Fada Freddy mi ngi ci groupe bi euh, Ama Ama Diop beat maker bi nga xam ni biital na fi bépp rappeur rappeur bu fi rap sa rap cartonné alaaji ma euh, euh, Ama Ama Diop bu seen kumpa bu Médina biital na la déggal ci ba duggal ci ay beat maker yoo xam ni da ngeen leen doon dégg ay indi shaft ak leen doon dégg ay Ibou Ba da ngeen leen doon dégg sax mais mosoo leen leen gis alaaji maam loqoti na ay ñoom chifaay ay ñoom euh, dread schizo ay ñoom képp ku la réeroon ci rab bu leen bàyyi ñu ne yii maa yow maa ànd ak ngonda ñooñ sax dugal na leen ci donc Aladji Man créé l'extraordinaire boomerang du hip hop ci group whatsapp bi l'extraordinaire boomerang ci groupe whatsapp bi Aladji Man donc gars yi dajaloo nekk ci biir di waxtaan ñëpp ku ci nekk di ñu ñu def ko genre retrouvaille ñépp mu doon retrouvaille ñu gisante seen biir ku ne di waxtaan rek si gis waaye ku yàgg yow jamonoy underground yoo xam ni gaayen parce que Rex T jamonoy underground ñoom Bilal suul su li client tactique tactique tactique jax ci suñu flow on the MIC ñu représente Zou Squad technique tactique lépp jax ci suñu flow boobu man rex xam naa ñoom rex tii rex yi di ma yóbbu gàllem jamono yu underground ñu yoroon sound bu kilométrique rex doon ma yóbbu gàllem pour wax ni dañoo tarbee hip hop may dem ba Parcelles Assainies rex yi di ma teggaale di ma wan ay affaire rex foofu la ma rex tii sax doon expliqué moom concept parce que tak ñaari rapport fu ñu dajee rek concept la ñuy wax philosophie ma ne ko lan mooy sa concept mu ne noo rex la boo gisee dinosaure bi di ma dessinéel Mandaw moo ne woon dessinateur bi Mandaw day dessiner vite fait escadron 113 Mandaw di ma dessiner vite fait graveur di tage di ma ko jox ba léegi maa ngi yore grave boobu bu Mandaw Mandaw defal ma mooy bariw ñuy dund hip hop bi dajale doon ay squat parcelles yëpp di daje ci télécentre Bilal suul suli client ñëpp di fa daje ma fay dem di paas clando car rapide même Gaston noonu laa xamee di ko wër ci tàngoon bi ñëpp nii lañ xamee ay freestyle booy rap nekk rap à son apogée y avait même suñu fleuve si ñi ngi woon ci biir ñëpp donc Alaaji Man créé groupe bi bu mu créé groupe bi ñëpp ne ci di waxtaan retrouvailles yi mu rafet nice ñëpp bégee tak Alaaji Man ne bon tey nag dama leen di expliquer lan moo waral groupe bi groupe yi lu ko waral mooy dañoo bëgg ñu booloo ñu jàppante dañoo bëgg lii nga xam ne ñi ngi divisé wu alal gi di divisé wu ñii di ko lekk di bàyyi ñeneen ñi ndax ay affaire structure ak yooyu ñu boole rab bi ñëpp mun cee amal njëriñ ay génération ak des générations mun ci jëriñu donc il faut ñu am benn point de vue bu sori il faut ñu am benn bëgg-bëgg bu sori donc gars yi dama leen woo du sama group nag dama ko dajale rek waaw rek si yow yaa ngi may seedeel parce que li yëpp fekke nga ko barke alxuraan <laughs> du tay de gars yi dañoo turé rek gis gars yi di ànd nii te xamuñu nan la demee fekk ñun dañ koo bërëng ay vingt ans derrière dajaloo vingt ans derrière yee Bilal du ma bàyyi ma fen télécentre Bilal suul suuli client lañ doon dajale lépp rab rek la doon xeeñ barke alxuraan rab rek gars yi dañuy rab ba naaw allahu akbar rab rab rab rab suul nay ndaanan rab suul nay ndaanan sulli la teg suul nay ndaanan sulli ay baadoo la rab rab sénégalais ñi ñëpp ay milliardaire lañu waroon doon bu ñuy rab fifty cent sax existé wul Eminem sax existé wul mais tey maar dee taali <laughs> donc alaaji man teg groupe whatsapp am bi rab tax na ma dem dëkk ak Sidi Talla malal connecté ma ko nag am naa rakk bu nekk fee bu bëgg rab Sidi Talla ne woon ci ay déglu ay kaana dëkk naa ak Sidi Talla même néeg di yeewu di jóg di rab rek lañu dund <laughs> rab dafa garaaw alaaji maan dajale groupe whatsapp bi donc waxtaan yi am alaaji maan expliqué lan mooy idéologie groupe bi donc gars yi ne acca bismillah waxtaan yi chaque jour benn thème thème yi gaa yi di waxtaan di toj ay marginal crew yi ngeen doon dégg Saint-Louis ñoom ñagas ko dëkk boo dem ñëpp daje fa pour mu bañ a am rek frustré alaaji maan ne léegi affaire baa ngi nii du sama groupe whatsapp ñun rappeur sénégalais yi nañ xool nuñ def pour mun ci xool luñ mun a génnee luñ bokk te mënuñu ko seddoo ñu xool lan lañ koy defee li nga xam ni mun na dimbale ay future génération j'ai des génération j'ai des génération parce que waxoon naa leen ni waajooju doon ji doomu euh, tàndarma bi ñu koy reetaan mais ndakate moom da ko ji pour beneen génération ak yeneen génération parce que mi ngi lekk tàndarma boo xam ni xamul ñu ko ji woon donc alaaji maan ne waaw ñi nekk ci waxtaan avec ñoom gars yi génn waa ñoom Simon eh, ci ci ci lañ jàpp ndeysaan Ngaaka Blindé ci problème boobu mi ngi fekk ñi ngi nekk ci groupe bi ba ñëpp di indi ay solution nañ def nii nañ def ne DJ nekk ci biir am amul bàyyiwul kenn ñu dem ba ci biir ci mbirum xaalis la tase ba ci biir nag ñu ne léegi groupe bi comme adduna yëpp daje nañ fi nañ créer groupe bi mu doon maanaam ñu wutal ko këyit n'est-ce pas ay këyit valable mu nekk association des rappeurs du Sénégal association des rappeur du Sénégal mouvement hip hop bi retrouvé wu ci lii donc lépp li nga xam ni ça va tourner autour du culture de la culture urbaine groupe bi moo koy gérer ak ay ay ay ay rendre euh, ay rendre ay compte et cetera et cetera Sénégal yëpp gis ci seen bopp ñëpp ne nice na ñu ne fonds yi nga xam ne Macky Sall mi ngi koy génnee di ko jox rappeurs yi dootul yem ci ngeen koy seddoo mais fii lañ koy teg ci groupe bi yàmbalan wutal ko kont wutal ko kayit xaalis boobu di jóge palais di ñëw ci groupe bi direct para dugg ci compte groupe bi un milliard deux cent ñu tabax ci ay salle de spectacle yi high level bien fait yu sophistiqué n'est-ce pas wut ay logistique wut ay baaful wut ay ay strate wut lépp wut ay ay ay ay fonds yi nga xam ni ba euh, taggeurs yi ñoo koy defar graffeurs yi mu nice hip hop sénégalais bi gis boppam am salle boo xam ne spécial hip hop spécial hip hop comme nu mu amee États-Unis comme nu amee France comme nu mu amee partout rap galsen comme nee nañ mooy troisième mondial au moins mu am salle de spectacle spécial hip hop culture urbaine rappeurs yi di rap graffeurs di graff breakeurs yi di break DJ yi di faxas public bi di applaudir ñu moomal sañu bopp sañu mbir rap boo xam ne 30 ans ba léegi amul salle de spectacle. Sorano la ñuy dem ak ak ak Grand Théâtre fu mbalaxmaan yuuxoo fu taasukat yuuxoo rapport ba ñëw wàll si ko rafetul bokk ñoom benn jotaay bokk ñoom ñëpp te dañ leen di xas donc hip hop bi dem di am doon benn genre industrie gis nga lool nu mu naay see ñu ne ñan ñoo d' accord oh ñëpp d' accord li xaalis bi léegi hip hop bi moo koy gérer dootul demati ay affaire individuelle ñëpp d' accord mu des nag ñi nga xam ni ñooy seddoo ñoo séddoo un milliard deux cent yi ñi seddoo un milliard deux cent yi ñooñu bàyyi gaa yi ci biir nangu ñuy wax nangu ñu tontu ñu ne nañ leen déglu parce que gaa yi xam nañ ni kaymaa yaa ngi ci suñu biir mun nañ wax mun nañ ree mais bu desee lu dul jël ay décision kaymaa ya duñ nangoo ñàkk seen mbiru individuel yi pour collectif loolu loolu laa ñëw di expliquer da ngeen lu baax parce que li may wax ni ay seede ñi rappeurs yëpp seede lañ du ma wax lu nit di fekkewul ñëpp ñu ngi may déglu démb daf naa laay quatre-vingt pour cent du hip hop sénégalais woo nañ ma billaay wallaay wa taal fa partout vraiment merci Mollah Mollah waxal nga ñu Mollah nangam nang Mollah ngir yàlla di ma ñaanal rappeurs yëpp la quasi totalité woo nañ ma di ma ñaanal ci li ma wax maa ngi leen di gërëm tamit di leen remercier mbir yi dama koy def pour yéen pour la hip hop Galsen parce que rap dafa am DJ dafa am ay animateur dafa am ay breaker dafa am ay danseur dafa am ay tagueur dafa am ay graffeur loolu yëpp das hip hop mooy 300 millions la ak 300 millions ak 600 millions loolu la on a les chiffres exacts le chiffre exact ak liste ñuñ financé pale ni yàmbalang information boo fa bëgg am ko donc lan moo waral groupe bi ñenn ñi nanguñu accepté foofu laa jàppanteeg Simon ba suñ jonn yàlla tey déglu leen ma ne foofu laa jàppanteeg Simon ba suñ jonn yàlla tey ci groupe bi ñëpp di xaar gars yi Simon war a ñëw approuvé alaaji ma euh, awadi war a ñëw approuvé ñoom ñoo yor ay structure soi-disant structure les gens aux pieds d'argile euh, matador ak structure am war a ñëw approuvé awadi war a ñëw approuvé et cetera et cetera nangu ñu tontu ñu toog di xaar une semaine déroulé ñiy xaar ñooñu rek ñëpp d'accord sauf ñoom une semaine ñu xaar gars yi tontu ñu ñiy woote waaye gars yi wax leen bokk wax leen deux semaines ñi leen di xaar naan wax leen wax leen gaa yi bañ trois semaines gars yi bañ quatre semaines gars yi bañ cinq semaines gars yi bañ ñu commencé jël gars yi suuf gars doo leen wax ci affaire bi xaalis bii nii yéen nangu ngeen pour mu hip hop jariñoo ko wala yéen rek yéen a ko bëgg jariñoo melomaan bi ci la bokk parce que tey jii sa boo toggee sa ceeb nu mu neex neex buñ ko lekkul da koy këpp te deuxième jour bi boo defu ndànk doo togg ndax dañoo laajoon sëñ Bàmba ne ko ñay jàng xasaayit ñoom lan moo tax ñee toog fee di xoole mu ne leen ñay jàng xasaayit ña leen di déglu ëpp ñuy jàng xasaayit ëppalewuñ ña leen di déglu ndax buñ doon jàng te ñee kenn du leen déglu boo yow deful ndànk ñu noppi mu ne bu leen xeeb ñay lekk tamit bernde ya ndax bu ñuy togg ca waañ ba buñ joxee ñuy lekk bernde ñëpp kenn lekkul boo deful ndànk ñu tuuri bernde ya kay jàng xasaay kay toggu ak kay lekk ñoo tolloo képp donc quand je parle du hip hop de la des des cultures urbaines je parle de tout des mélomanes des rappeurs des breakers des danseurs des taggeurs des graffeurs des des journalistes hip hop et tout. léegi ñu ne Rex joxe proposition ne est-ce que ñu def sax benn réunion spéciale boo xam ne grand théâtre ñëpp toog ñu xool lu jëm ci financement yi et cetera créer ay affaire créer ay ay salle créer nangam nangam yëpp ñëpp joxe proposition yi ñëpp d'accord ñoom rek ñoo tontuwul ba léegi ñu leen di xaar ñay daw ñu leen di xaar ma ne Simon foofu laa kalaatee Simon nag comme moom dama ko yàpp ma ne ko bay booy kaa leen ngeen wax ci mbir yi yéen mun leen fi nekk rek di lekk alalu hip hopeur yi saa yi ñëwee ngeen ne ko warax seen burul gi yëpp lu ñëw ngeen ne ko warax mais gars yi gore leen xaalis boobu ngeen di jël ci ay structure lu Macky sal financé yëpp ngeen lekk ko ah fonds des cultures urbaines ministre de la ministre de la euh, euh, de la culture lépp ngeen lekk ko kaay leen wax ci ñu mu mu créé problème ci biir groupe bi man ak Simon jàppante mu tàng jër waaye yow lu tax ma indexé ma bla bla ñu coow fa coow bu tàng léegi Simon effacé wu ci groupe bi daw génne boppam ci groupe bi ba léegi tontuwul génne boppam comme loolu noonu ma wax ko boobu noonu mu indi coow boo xam ne boobu lañ gëj a wax nag ba nii mu indi coow boo xam ne coow bu metti le lendemain si moo ñëw dugg waaw man moo moolaa di def ay histoire man ak moom laa moom nee na ma nii man bu ma nee ko naa même après sax envoyé dama message sama whatsapp di ma saaga moom wax na lii wax na laa kon nag man nag maa ngi dem rek ca si si moom génn groupe maanaam dawee jaaree noonu sey groupe bi mu des ñëw awadi awadi nga xam ne moom bu duggee ci groupe bi rek day day sànni benn flyers benn benn benn benn benn publicité concert am ñëw leen numbelaan ñëw leen fii kaa leen seetaan nu kenn du ko lijjanti du am sax ñaari kii donc mu des awadi des matador représenté par Amadou Fall Ba ak yeneen si si moom moom daw na génn groupe ba moom def na histoire ne man ak moom la seey na ba léegi réponse amul donc moo fi njëkk génn seey y avait les fafadi tout le monde si moo génn seey créer benn genre faux histoire bu mu ñëwee waa booy yi yéen laay conseillé yéen booy rappeurs yi moytu leen c'est que li muy wax nii nangam nangam ma ne ko yow génnal moo ñu sonal nga naan ay seen booy yow amoo looy conseillé booy yow boo yërëmoon booy yi xaalis duñ ko teg nga warax ko danga nga koy jox booy yi gëmoo booy yi boo tax booy wuñ la sax booy ils se sont créés ay phénix lañ ils se sont créés eux-mêmes créé woo benn booy booy kenn dégluwu la yow booy de nawloowuñ la sax ba lay déglu mu naan day conseiller booy yi baa ngi nii damay dem nag mais balaa maa dem dama leen di conseiller balaa balaa tëj góor génn léegi groupe boobu nag noonu la tasee ndax ñii nii may wax vampire yi ñoo ko tas parce que ñoom rek lañ soxla woon ñu valider idée bi gars yi nag ne léegi nag nañ dem wuti kayit ñu wuti kayit alaaji man xam na affaire au school la yàgg na ci game bi xam ne nu ñuy amee kayit kayit ak a yomb comme extrait de naissance rek du dara pour am ay kayit association donc ñuy xaar une semaine deux semaine trois semaines quatre semaines cinq semaines gaa yi di xaar ñi gaa yi nga xam ni ñoom xamoon nañ nii fii lay mujjee commencé di gedd om si jël ma om om om séréré Omar Ben Khattab BMG na ma ah gaa yi duñ tontu de <laughs> alaaji man bu yeboo mu xam ni ñii ñii vampire yi balaa ñu ñu nga ngay génne alal gi alalu rappeurs yi ñuy lekk ñaq baadole yi ñuy lekk balaa ñu cee jot ñii nii seen bakkan lañ ci teg ma ne ko loolu moom c'est sûr groupe bi moom Alaaji Man daa xaara xaara xaara xaara xaar ba xaddi ba groupe bi kenn dootul wax toog nañ quatre semaines yoo xam ne kenn neewul salut ñi déglu gars yi rek ñi yor structure yooyu nga xam ne ñooy lekk suñu xaalis mooy ñu may wax mooy gang bi mooy lobby bi mooy bandi yi Alaaji Man daa mer dafa toog mer rek xam nga Alaaji Man blood fire rek supprimer groupe bi boum group bi seey supprimer amoon na ñeneen ñi ci nekk nag ay ñi nga xam ne newoon nañ ci group bi di créé di kii ak yooyu nekk ay administrateur alaaji maan daa xëy rek supprimer groupe boobu parce que buggul ko yàpp créé ay affaire ñëpp d' accord ay nit yoo xam ne benn portion bu ndaw lobby bandi yoo xam ne sàcc yoo xam ne vampire assoiffé yoo xam ne nee nañ mukk mukk muk awadi simon matador malal ñi ñoo yor ak ñi ak coog cogg yi wër taxawaalu ñu ne mukk duñ duñ duñ nangu duñ accepté duñ validé alaaji maan ñooñ booy dañ ko yeb nii alaaji maan bu may rab taxaw bu taxawee booy kenn ñoom ñëppay say kenn ñi mawu ko ci alaaji maan ne man sax maa ngi bëgg a ñàqal sama bopp fayda rek dileet groupe bi ne jabar ji vraiment am nga dëgg ci man quoi neexul ba neexul mais les rappeurs là c'est des vrais animaux un animal nag des chiens kenn mënu leen dimbale ay xaj yu enragé œillère rek nga leen di takkal nii ay œillère ñi nga xam ni nag laay wax ñi nga xam ne ñoom ñooy lekk fonds yi te nangu ñu ñëw te bañ ñoo ñu ne ni mukk ñëwuñu alaaji man di leen groupe bi donc jàpp leen ni ñii ñoo tas suñu groupe bi mooy lobby bii demoon pale lobby bii demoon palais ñoo tas suñu groupe bi si moom moo njëkk a génn ñeneen ñi ñoo fa newoon kenn approuvé wul ñu tas groupe ba tak ci la xaalis ba wadd parce que xaalis boobu lañ bëggoon bum demaat ci loxo gaa yi ñu créé affaire bi vite fait xaalis bi ñëw ci groupe bi ñu créé ay salle de jënd sañuy sono defar sañu affaire yoo xam ni hip hop bi day indépendant day autonome moomal boppam xaalis boobu def nañ lu ne mais gars yi lekk nañ ko warax lañ ko def rek xaalis ba wàcc tak culture urbaine génne affiche yi ne ñi ñoo jot financement yi mooy kaymaa yi ma leen wax Simon dóor ay 10 millions am Awadi lekk fa 10 millions Matador dóor fa ay 10 millions am Malal lekk fa 10 millions am ñoom ñu séddoo millions yi ñooñu séddoo millions yi xaalis ba ne cas seey ñu lekkaat ko ñooñu ñoo demaat encore pour une deuxième fois déglu leen de c'est pas la première fois pour une deuxième fois ñii nii nga gis nii xam nañ yoonu palais bi de pour une deuxième fois ñoom ñoo demaat palais ñii demoon nañ pale c'est pas la première fois parce que xamu leen ko ñun rab bi xam nañ ko ñii dañoo xëy rek ñu gisoon leen boo gisee gars yi di aalu nii c'est pas pour rien parce que dañoo sonn dañoo mujjee dem ba nga xam ne xam ni kaymaa yi nii duñ dégg duñ gis xaalis rek lañ gëm gëmuñu rab bi amuñu talent munuñu xamuñu dara mais xaalis bi moom dañ koy jéem a lekk allah kulli al xaalis boobu ñu ne ko warax ñooñu ñoo demaat ñoo ñooñu ñoo demaat démb am ñi nga xam dañ ma woo ci ñoom am ñu ma woo mais laaj naa question yoo xam ni ba léegi tontuwuñ ma parce que nee naa leen yéen ban légitimité ngeen am ban légitimité ngeen am ba saa su ne yéen yéenay dem palais ban légitimité ngeen am pour saa su ne dem palais kan la parce que yéen seen papa moo liggéey fii wala seen yaay moo fi bàyyi mbir yi wala yéen da ngeen dàq nit yi rab wala nit yi da ngeen ëpp xam-xam wala nit di da ngeen leen dàq ëpp vision lan moo waral yéen ñii yéen seen taabu ndaw bi les g set lañ leen di wooye G7 ñooy liggéey ak mairie yi ñi ngi ci gouvernement bi ñi ngi ci dil yi G7 lañ leen di wooye ñu ne leen lan moo tax chaque jour bu ñu nee rab rek ngeen dem yéen moo ne ko lan moo lan mooy seen légitimité kan moo leen yónni kan moo leen yónni pour ngeen waxal au nom du hip hop waxuñu leen pour seen boppam vous êtes parti parle au nom du hip hop pour la deuxième fois pour la deuxième fois ñu laaj leen ko kooku ma laaj ko ko amul tontu ma ne ban légitimité ngeen am ma ne amuñu benn légitimité ma ne ko lan moo tax yéen rek ay dem pale est-ce que xam nga ni bopp yooyu ñoom rek ñooy dem pale ñoom rek ay lekk xaalis bi mu ne ma loolu xam naa ko bopp yooyu ñoom rek ñooy ñoom rek ñooy lekk xaalis bi kon loolu lobby la mu nangul ma ni loolu c'est vrai lobby la bu am yónnewuñ leen yabaluñ leen yëguñu ko tinuñu rab sénégalais bi am na ay millions wu nit booy rap ba dindi fellu ba foog nga foo dem am nay rappeur sénégalais booy yoo xam ne duñ leen xeeb ku la dàq rap nga dem a kii man bu may xeeñ rap maa ngi nekk tambaa ci àll ba rappeur bu ñëw Tamba ma dajeeg yow ci freestyle danaa la bàcc bàcc ba nga xam ni Iba daf ma doon wax naan mooy looy def looy def fii gars ñëwul town Iba daf ma ko doon wax loolu ñëwul town gars bul yàq sa bul yàq sa aar ñëwul town gars yi boobu maa ngi ci underground bi di dund underground bi di ànd ak ibaa ñi dem ay hydraulique hydraulique bu Tamba ay cousin am ñoo fa nekkoon man Iba Keyti ñi dem hydraulique Iba di ma wax ni ma ne ko ibaa mu ne waaw ma ne ko jaan bu matagul warul génn damay xaar ba doon kobra wala bowaa doo génn nga xam ne lu ma jot lekk loolu laa ko tontu woon mu jël sama numéro ñuy déggante all time léegi bu ma ko laajee légitimité bi ngeen am pour dem di représenter hip hop amul tontu bi lan moo tax yéen rek ay daje amul tontu bi lan ngeen fa wax mu ne ma président de la république dafa am ku ñu woo ministre la wax na ma turam nag quoi dafa am ku ñu woo ministre la. ministre bi moom moo leen woone leen président dafa bugg a waxul ne yéen de président dafa bugg a dajanteeg les acteurs des cultures urbaines les acteurs des cultures urbaines président dafa bugg a daje pour waxtaan donc ñoom ñu négocier comme noonu lañ affaire gang boobu ñu daje dem fa bu ñuy dem waxuñu ne dañuy dem au nom des cultures urbaines te bu ñu leen di wax ne président dafa bëgg a dajeeg des membres des cultures urbaines des acteurs donc quand il parle de culture urbaine le président n'a pas di indil ma xumaan indil ma awadi indil ma matador indil ma euh, comment dirais-je malaltal waxul loonu toujours ces même têtes là ñu connecté ko ñoom ci seen biir raaxaale ci dib pour bum ñaaw peinture ci dib ay vampire assoiffé lañ dañuy dañuy seen seen gémmiñ chaque jour dañ koy jéem a raxas wommeeku ñu dugal ci dib dugal ci sama rakk ji OMG ndeysaan xam nga ay gone lañ ñu demoon yëpp mat nañ leen papa papa laa wax ay mag lañ ñu yóbbu leen ñoom xamuñu ay xale lañ c'est des new school xamuñu mafia bu am ci game bi dañuy dégg rek parce que xam jamono yooyu ay ay xale lañ bu boo ko génnee ci ñoom ok je vais suivre euh, ngeen baal ma da may signaler rek bu ki nekk nit di gré rek da ngeen may signaler ma effacé ko ñu jàll OMG ak DIP duñ ci dara man après dinaa wax ak ñoom ci li ma xalaat parce que ñun yàgg nañ ak ñii mag bu la gën a yàgg ci néeg bu lëndëm moo lay wax ni ngay toogee ñun yàgg nañu ñii te xam nañ leen seen jikko dañ lay ree ay bëñ fekk bëñ weex na loolu waaye dereta ko lal donc ñoom ñu dem buñ demee teg seen dil nee na président Sénégal moom nee na ma président quinze minutes la leen jël buñ ñëwee président ñoom la njëkk a bàyyi ñu wax comme dañoo bëri woon moment bi président bi di jël woykat yee euh, lu mu tëdd si communicateur traditionnel yooyu ngeen gis noonu ñoom mbay Peex ak ñoom Ablaye Mbaye yeeg ñoom kee gaayee noonu ñoonu noonu buñ jëlee ñooñu ñoom lañ jël maanaam dañ leen boole ci groupe communicateur des communicateur traditionnels lañ leen boole rappeurs yi ak communicateur traditionnel ñoo bokk benn audience pale ñii dañoo dugg ñuy génn ñoom ñoo bokk bu muy jël politique dafa jël Y'en a ci politique bi dafa jël Idriss Seck jël Ousmane Sonko jël Y'en a mooy politique bi jël politiciens yi woo Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye lànk ne ko soxlawuma ñëw coronavirus la dañuy moytuwante mën naa la bindal benn télégramme yónnee la ko comme affaire coronavirus rek ngay wax ak ay yooyu loolu mun naa ko soxlawul may toog donc le gars a rejeté donc Macky Sall def da ko xam ne dafa jël ñiy politique dajale leen yaa na ma de politique mu dajale ko moom ñoom Sonko noonu ñëpp ñuy politique jël ñëpp ñi nga xam ne folklore bi mooy woykat yeeg ak ak ak communicateur traditionnel yi mu boole leen foofu la dugal rappeurs foofu la dugal rappeurs yi xam nga boo dégloo rek ñu dox la proposition bopp yi ñu ngi fi bopp buy génne lii am na proposition du jeex wax naa ko léegi bu ñu sonal nag bugg ku ku lay tontu du ma tontu de bàyyil say note rek après dinaa la tontu fii loo fi wax ñu tontu la. causé wu fi benn question bu ñu jommal mais munoo yàq sama suivi dafa am lu ma préparé teg samay kaye teg samay bii da ngay may may ma toj lépp après bu ñu yegsee ci yow ma tontu la mais munuma bàyyi li may wax amoo légitimité boobu noonu bugg la tontu force non non non amoo légitimité boobu. añ musul jox ba nga jox ma ko reer musul tot ba nga jox ma ko ndox musul ma mar ba nga jox ma ko donc da nga may déglu boo buggee mais munoo ma changé dama am nu ma topp di ko toj da nga may déglu mais munoo ma forcé ne ma waxal ci li ma bëgg nga wax déedéet man du ma doxee noonu du ma doxee noonu du ma doxee noonu da nga may déglu parce que dama ko préparé yenn yi ma bind ko sama portable j'ai pris mon temps te yow ak say junni morom yéenay déglu donc may ma rek ma wax par respect yéen rappeurs yi foo leen tam wane fa sen bopp yéen melam foo leen tam wane fa seen bopp tout le Sénégal écoute donc da ngay déglu foog nga wane fa sa bopp ne benn benn ñebbe ci biir cin capp capp capp ñam capp yéen mun leen toog xanaa moo tax rab dafa jege rab ah da ngeen rabe rab comme ay rab foo leen dem wane fa seen bopp njëpp njëpp njëpp njëpp njëpp njëpp njëpp donc le président jël leen en ñu dugg si président 15 minutes la leen may 15 minutes dañoo ñëw toog ñoom ñëpp nag <laughs> président ne na ngeen def ñu ngi rek monsieur le président dama lay wax li nga xam ni man kenn ci ñoom moo ma woo ak gars ñu bëri nag woo nañ ma ku ci nekk ci ñoom say représentant presque woo nga ma. ñu toog président bi ne waaw na ngeen def non Macky Sall bandi la nag na ngeen def ñu ne waaw ñu ngi fi rek président yëpp ngi jàmm waaw président ñoom la bàyyi ñu wax. yow xanaa ku la woo wax la président déglu leen ku ne na way monsieur le président ñun moom coronavirus bi nga wax ñun xaaruñu ci kenn def nañ ay publicité def nañ ay sound def nañ lii def nañ laa takkal nañ fii dóor nañ fee teg nañ fii dil wax nañ fee ñun kay ñëpp ñun la ñuy déglu ñu ngi rajaxe Sénégal ñu ngi koy bombardé ñun kay ku xamul coronavirus xamal nañ la ko ku ko yëgul gisal nañu la ko ku ñun kay doon ay tradipraticien doon ay escroc commencé ratatati ku la dàq wax nga ne ma kii la ku ne ne def naa ci sangam def naa ci sangam wax naa ci nee naa corona moytu nit yi may bàyyil Sénégal bul ko laal bul ko jege bul ko laal bul ko jege ku nekk na def na ci donc président bi déglu leen éviter leen ba pare déglu leen de ku ne di ratatat def naa ci son wax nañ ci mu ne leen président déglu leen 15 la la may ah. ñoom rek am dañoo bëri ku ne wax président ne waaw euh, maa ngi leen di remercier yéen ñëpp comme ni ngeen ko waxee comme euh, ñëw ngeen fii euh, te tamit xaaru leen ma ci dara coronavirus bi def ngeen ci ay sound c'est bien et tout ça man nag damay pare jël ay prérogatives et pour jàppale askan wi dimbale leen et tout et tout continuer leen di leen exhorter aussi rab bi maa ngi leen di suivre yéen a ngi def lu rafet macha allah alhamdulilah président bay wax de ay information nag laa lay wax ne da leen di féliciter ci musique bu ñuy def ak yooyu ay ak ak ak publicité yi ñu ay ay promotion yooyu waaw waaw président bu ñu defee lii bu ñu defee laa bu ñu defee laa président ne leen waaw maa leen di gërëm maa leen di remercier maa leen di nangam maa leen di nangam te ndeysaan awadi bu muy rab boy président mi université di jàng maa leen di gërëm bu ginnaaw ba leen gërëmee sant leen ci promotion bi ngeen di def ci sensibilisation bi ngeen def quinze minutes la leen may ah waaw donc euh, lan mooy seen li ngeen jaay waaw monsieur le président ñun kay dañoo impacté wu parce que gis nga Dip war na def quatre cent quatre vingt quinze concert dans l' année mais coronavirus bi tax na Dip nu ko def xam nga man awadi nag waroon naa def benn en Espagne benn en Australie benn en Belgique ak sept cent sept mille sept cent soixante seize concerts yi ma waroon def donc lépp dama impacté wu ku nekk di ratatati di duur dama impacté dama impacté wu dama impacté wu rek ngay dégg les gens déglu leen ne leen ne leen ngeen jéglu ngeen jégal ma nag bu ma effacé ku ku def benn commentaire maa ngi liir bu ma effacé boo bindaatee leneen rek dama lay bloqué n'est-ce pas j'avance damay mettre en quarantaine waxoon naa ko entre guillemets baal leen ma képp ku nga xam ne gis naa danga nga am corona mine corona mine dafa am coronavirus dañuy wax ay ay bët ay bakkan ak ay ay gémmiñ dafa am ñu am corona mine corona mine nag ñooñu dañoo infecté wutu du ma nangu ñu infecté kenn ci ñi nekk fii nii di suivre képp ku boo gis nga corona mind nga dama lay mettre en quarantaine c'est-à-dire de te bloquer immédiatement corona mind du ma ko nangu parce que man nangu naa jëmm ju jëmm ju tilim xel mu sell mais nangu ma jëmm ju set xel mu tilim loolu nangu ma nangu naa jëmm ju tilim xel mu set mais nangu ma xel mu tilim jëmm ju set mooy jëmm nit ji ko mala du ma leen accepté je peux pas aw ma démocratie boobu du ma accepter les imbéciles je négocie pas avec eux je les mets en quarantaine immédiatement et j'avance soit c'est clair on avance donc bu ñu waxee seen soxla ne ñoom dañoo impacté wu bla bla bla président bi ne ok donc euh, comme ni ngeen ko waxee rek bon fonds des cultures urbaines et cetera et cetera et cetera donc euh, voilà comme ma maa leen waxoon loolu dinaa génnewaat incha allah Euh, six cent millions yu ma leen yu ma leen di faral doon jox yee euh, après ngeen xool li ngeen def ku nekk mais da ngeen di da di def récapitulation yi ngeen yi conseil yi ngeen waroon def ngeen perte ko te defu leen ko gauche droite tout ça ku nekk def benn projet affaire projet projet ku ne def projet après ngeen génne ko après ngeen yo yónnee waat ma ko ngeen jaarale ko ci ministre bi leen contacté woon naa ko jot ma xam ko ci nekk ñaata nga perte ci ci ci euh, moment corona bi ñii dinañ ne cinquante million ñee ne quinze millions ñee ne deux cent sept ku nekk dina def ñu corona da ngeen may signalé ngir yàlla signalé leen ma ñu corona boo leen gisee ko coronavirus corona mine signaler leen ma ma teel ko mettre en quarantaine sinon seen sécurité est en danger seen sécurité est danger am na ñoo xam ni man yàlla sax mënulu leen dara du man maa leen di jéem a mënal je les mets en quarantaine s'il vous plaît leen gis mu corona mine signaler leen ma ma am na ko corona mine mi ngi nangam bu ma ko gisaatee je l'efface j'en na rien à foutre de vos idées allez le dire à Macky Sall yoruma seen nguur yoruma seen xaalis yoruma seen compte banque j'ai j'ai pas de compte à vous rendre vous écoutez ou bien vous zappez à vos occupations je ne suis pas là pour vous ah du ma seen baay du ma seen yaay du ma seen maam du ma seen nijaay te du ma seen doom it je ne suis pas là pour vous j'ai pas besoin de vos idées absolument allez le dire idées yi ngeen am ngeen wax ko seen doom yi wala seen baay yi wala seen yaay yi soxla wu des idées négatives des idées trop négatives vous n'êtes pas pour la société ay coronament maa ngeen baaxu leen ci kër baaxuleen leen bàyyi ci biir àll man je vous écoute pas j'ai j'ai même pas besoin de vous écouter wasalaam on continue donc Macky Sall na da leen di yónnee encore six cent millions pour ñu seddoo ko ku nekk na def ci leen génnee calculer ni dina am ñoo xam ni ñoom duñ leen may jàmm ci lañ woowee nit dof ne ko donc gis nañ président déjà dugg nañ représenter culture urbaine te waxuñu ko rappeurs yi un million de rappeurs e quelques ñi ngi partout ñi ngi ci monde bi ñii ñi ngi France ñii ñi ngi États-Unis ñoom Chifa ñi ngi States Slam Revolution luñ fa deful amul Sicap bu xamee rap c'est Slam Revolution underground hip hop rap hardcore ay ñoom gladiator ñi ngi Europe ñeneen ak ñeneen ñu ngi Australie ñu war a ñëw rendre compte déjà dugg nañ palais te rendre compte benn rappeur di représenter rappeur am na ay jigéen tamit ñi ci ne donc rendre ñu compte ñu retourner encore génn ci pale bi dellu seen kër yi ne tekk rendre ñu compte c'est pas du respect là c'est pas du respect pour le hip hop sénégalais duma dem di gis Macky Sall di wax ko nom du hip hop génn te yëgaluma leen du ma dugg ci palais bi di wax au nom du peuple te yëgaluma leen ñoom ñëpp dem ñibbi sans rendre compte wax ak kenn ci télé bi lañ ko gisee ñëpp ne jaxaran gis tele bi bu ñu woowee euh, nit dof ne ko defar projet xam nga pour yow concert yi nga war a def impacté wu fii impacté fee duul dajaleel yow nangam nangam nit dof lànk ne man duma duul di dajale soxlawu ma ko alalu riba instant yi am na ñu ñu gën a impacté ñoo xam ne ñoo mérité lekk ko du ñun ñoo mérité lekk ko donc jox leen ko ñu ko mérité même MC Leda am ngi woon ci groupe boobu donc nit dof répondre leen loolu parce que ñi ngi calculer ni bu ñu defee loolu nit dof de leen di kalaate man mosuñu def dil te kalaate wu ma leen li ma leen di kalaate sax nit dof du leen ko kalaate donc ñi commencé teg dil di jël ñi nga xam ni dañoo jàpp ni des prétendants danger pour seen xaalis bu ñu nar a lewal ñu commencé leen di woo benn par benn woowu ñu rek stiré woowu ñu keneen de ñu woo nit doof xool bu ma fa newoon dinañ ma woo parce que démb woo nañ ma di ma rendre compte lii lañ def lii lañ def lii lañ def parce que xëpp naa ci kaan te xamoon nañ ni xamoon nañ ni maa gën a tàng nit dof fukki junni yoonu ak juróom-ñaar maa ko gën a wexat ku ma xam ci rab bi xam ne ci wex laa ne wex bu ma bu ma jëlee micro ba bu ma nee bër Sénégal njëkk ma déglu la mu wax def hip hop Dakar maa de fokk loolu laa njëkk def senegal ñëpp di ma déglu premier mot bu ma njëkk a def ci rab Galsen saaga la hip hop Dakar maa de fokk fukki town wër ngël jokkoo ne buggi down jël njël donc aal googu ma yor aalu Tamba boobu aalu Kaolack boobu aalu tàngoor googu la njëkk a wane ci hip hop ku déglu oh, aw la mais tàng na kon donc man nii lañ ma ñi ku ma mus a xam nii nga ma xame amul caaxaan dama koy wexal xatt ni niim dañ ne corona bi nii moo koy faj dama koy wexal xatt ni niim maa jël premier mot bu ma def ci rab bi saaga la hip hop Dakar maa do fokk loolu laa njëkk a def donc buñ bu sénégalais dégloo ne nañ kii il est radical kii dafa dof ma ñëw sama aal xasaw xunn tàng jël sama bopp bi def ci ay éponge ay éponge ñu ne ma lan la mën a man wëndëng laa nitu mbedd man du ma fanaan ci kër ci ay matlaay usé laay fanaan bu ma yeewoo laay mooy takk sama bopp bi daana dem concept boobu nag ma ne yee SDF wëndëng foofu laa génnee wëndëng wëndëng dama doon def ay éponge yu ma daggate sama bopp bi jaxase ko nii maa ngi amoon ay ay ay karaw nii afro jaxase ko xoolal 2STV dama ñëw gars yi nag waa kii kan la bu jumaan bi nag jóge nii gars yi ne non kii sañu élément la sañu élément la loolu la leen tontu 2S dama ne burux gars yi di daw foog ni ñoom benn dox moo dugg biir 2S mooy kër gi bu muy def émission 2S TV bañ naan leen yéen seen antenne yeeg yooyu boobu man duguma dama ñëw gars yi daw man leen yee ñëw da ngay dindi éponge yi peñewu ma ne non du ma peñewu gars yi man ci mbedd mi laa bàyyeekoo street bi laay teewal SDF yi ñu ne ci mbedd mi wëndëng laa wëndëng taxawaalu kat damay wëndaalu rek ci éponge yi laay fanaan gars yi ne non kii non waaw gars ne non il faut nga dindi affaire bi après dañ lay peñe après ñu puudar la man leen góor ak puudar gars yi ne non parce que lumière yi musuma puudaru musuma dugg ci télé puudaru man moo laa Morgan je préfère bàyyi émission bi que puudaru non lumière yi nanga man leen du ma puudaru du ma kuy du ma góor buy puudaru gars yi ne non kii nag dof la boobu maa ngi dund ay concept yoo xam maa ngi ci ay dimension yoo xam ni gars yi xamuñu sax <laughs> Sénégal dañ doon am am lu rappeur mais man maay rappeur bi maa leen gën a xasaw ñëw ak samay éponge ñu ngi daw puudaru man leen du ma góor buy puudaru jigéenaw yelloo puudaru ñu ni kaay ne moo laa tekk ndànk moo laa tàng de ñoo gars yi man leen waay maa ngi nii sama dund la moom musa nekk ci man donc ci kaw loolu gars yi nekk ci ay deal ak ay mafia donc buñ demee ni daf kalaate leen ñuy wër di waxantoog di kii nangam nangam ma ñëw xëpp ci kaani ma ne pour duñ leen bàyyi ñu lekk ko buñ ko seetaanee dañ koy lekk maa la wax loolu nag ku lekk trois cent millions lekkat trois cent millions lekkat six cent millions ñu bëgg la joxaat beneen six cent millions da nga koy dërëx da koy dërëx warax donc c'est des cent sangsues des sangsues maa leen defal texte boobu des sangsues sans sous qui mettent sens dessous dessous dessus dessous entretiennent la grisaille et le flou c'est la race typique de redoutable filou maa leen ko bindal tey des sangsues mooy suceur de sang des cent sangsues cent sous qui mettent sens dessus-dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. Alaaji boo bàyyiwoon euh, awadi cinquante ans mënul bind lu mel ni léegi dama toog nii rek ah joobukaay un cartel de sangsues sans sous qui mettent sens dessus-dessous, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. des sangsues sans sou amuñu xaalis des cent sous cent sous qui mettent dessus, dessous, entretiennent la grisaille et le flou. C'est la race typique des redoutables filous. charlatan oh am na benn benn am na ko virus fii xaaral ñu yóbbu ko quarantaine dem na charlatan chenapan chagissant feignant la joie et sourit tant politique car invétéré politique dañuy politique di aar seen aar yëpp politique la déglul charlatan chenapan chagissant feignant la joie il sourit tant politique car invétéré ils refusent d'enterrer leur querelle d'intérêt au Sénégal comme des moutons des rappeurs sont immolés au nom d'une cause qu'ils ont ignorée un cartel de sangsues sans-sous, qui mettent sans dessus-dessus, entretiennent la grisaille et le flou, c'est la race typique de redoutable filou. maa leen ko jox ñoo yóbbu naa ko quarantaine ñu ah, ñu avancé Awadi est un escroc ñëpp ñum liggéeyal dil na leen Awadi teg na fi dil euh, euh, degeti Awadi laaj leen ko ana poto poto awadi liggéey na fi craven a lépp da koy craven a cigarette bañul dara awadi moom sàngara day jël day publicité capot day publicité cigarette day publicité lu ñëw day dóor craven a ak awadi malboro ak awadi excellence ak awadi poto poto awadi jóbbu leen ci poto poto taxal leen rëpp bàyyi leen fa dem yoonam uus kaana gàññe na fi ay affaire booy kawla kenn déggatu ko ënd chifaay ci affaire yooyu craven a kenn déggatu leen Thaïs Carlou D ñoom xumaan ñoom seen suley ñëpp gis ana awadi ana awadi vrai jaabulotee la vrai dëmm kum liggéeyal tey su da lekk ba nga jeex tak euh, buveur de sang la day naan sa deret ba nga woo koŋŋ ba nga esquelettique mu bàyyi la fa dem yoonam te lépp lay liggéeyal nag gëmul dara craven a Malboro euh, excellence poto poto Carlodi euh, euh, ñoom Taïs ñoom Njaaya ñoom Xumaan ñoom Baye Souley comme dilal lekk la comme dilal warax la buveur de sang Nescafé nes Nescafé très bien Malboro awadi bàyyiwul dara day mu encaissé doxot mu encaissé puub mu encaissé biir buy daw mu encaissé moom daal biir bi moo tax biir bi nee na fat taxaw vrai vampire Awadi je vous conseille moytu leen di naan sax da di jege Awadi bienvenue à poto poto yóbbu ne leen poto poto takkal leen rëpp ak day bàyyi leen fa dem yoonam ñun xam nañ Awadi ñun on connaît bien qui est Awadi un vrai vampire assoiffé de sang Nescafé Awadi Marlboro awadi excellence awadi Craven A awadi poto poto awadi Vitale awadi un vrai buveur de sang un sangsu sans âme ni foi Vitale kaane oh bro euh, am na am na koo xam ne boo fesmaan maa ngi ñëw fesmaan awadi moom mooy le plus grand dealer fesmaan bi ay millions la dóor moom ak Aziz Dieng ay millions ah, moom ak Aziz Dieng ay millions laa wax te sa même awadi nag mus ngeen koo gis ci ay marche awadi ñëw mu Guy Marius Sagna buñ ko fi tëjee mës ngeen gis awadi génn waaye nañ ko génnee génn ci mbedd yi di kii awadi du taxawaalu yooyu awadi fu am xaalis rek lay dox kaay ma kaay ma rey la lekk la rek ngay gis awadi fesman awadi dóor ay million ay million rappeurs yi mu fay leen ay benn million ku ci nekk mu fay la benn million moom dóor ku ci nekk lekk na ci yow cinquante millions dil yi mooy dilu national yi bokkul ak international ay Oxfam ak ay francophone ak yooyu yooyu yeneen la yii mooy national bi moom ak Aziz Dieng détourné ay million du nitu principe amul ay valeur ñoom xam lan lañ gëm kalan palan jalan li mooy seen dil déglu leen de palan kalan clan plan jalan jalan mooy jinne yi ay affaire mafia rey nit yooyu kalan palan jalan dañu teg seeni plan seen clan dóor ay plan wut ay sëriñ Mollah Morgun mi ñuy sonal dóor leen ko ay misil wàcce leen kële wàcceel kee nangam naa ay jalan ay jalan ñoo gën a garaaw jalan yi clan plan jalan loolu la doxe man li may def je le fais de manière désintéressée soxlawuma ci dërëm dama koy def te yàlla tax awadi mun na lekk malal mun na ko warax musuñoo juboo sax dañoo bokk G7 bi moo tax mais dañoo yàgg xeex ñun dafa nañ fi sound man ak ñoom malal ak gars yi yuy yub boo xam dañoo defoon sound di sa malal sax moo doon saaga awadi awaa di sa biir bu ngàndee bii xaw ma lan ak lan maa ngi fàttaliku defoon nañ fi sànq mam malal moo doon saaga awa di awa di rek la bañoon léegi nag dañoo bokk dil lañ ko dugal ci g bi moo tax muy négocier ak moom te bàyyi leen démarche individuelle yooyu dem au nom de te yëguñu tinuñu ñi ñooy G7 bi ñoo nekk tam ci mairie bi di gérer alal gi te rappeurs yi amuñu fulla amuñu fayda toog gaal seen muy metti ci ñoom dëgër ci ñoom wow koŋŋ ne feer ni pentax dëgër këkk lu lu lu tafaat noonu noonu taf taf taf noonu noonu di wax naan giri giri zaam zaam exorcise dëmm yi xaal weñ overdose rappeur sénégalais xaal weñ overdose lañ dund xaal ak weñ overdose teng la ñu def yoruñu dara dara dara lu dul ay texte ay ay ay milliardaire en texte lañ poches yi vide ñii ñooy lekk alal gi bugg leen soppi ay xaj ñu topp ci di daw boo dee jigéen dañ lay laal dog laa jox boo dee góor ñu ne la nang nga doon cogg nga ne waaw nang nga wër di ma fenal nga ne waaw nang nga foo toll di ma défendre nga ne waaw ñu ne la kaay jege si boo dee jigéen dañ lay laal dañ lay produire ngay jaar studio ñuy të ñu lay tëddee dóor rek dóor dóor dóor boo sàppee ñu ne la noo xam nga rek jàppal la benn album boo xam ne dañ la koy téel condensé la ko téel la ko un an di la yeexal en attendant ñi lay laal rek ba ngay sàppi album bi dañ koy dugal ci studio bi mu nekk ci ordinateur bi duñ la ko génneel nag parce que buñ la ko génnelee nga daw di en attendant nag ñu bàyyi ko ci studio bi mu nekk ci ordinateur bi ngay jaar chaque jour waaye doo dugal benn doo déglu bi saa yoo ñëwee rek ñu raay laal ween ya kii mu kii ñu ñu dóor la nga dem boo leen sàppee nag ñu am beneen bu bees ne dañuy produit beneen jigéen xamal ni pare nga noq nañ la ci biti moo tax pour nga gis benn jigéen génn album au Sénégal c'est rare c'est trop rare quatre vingt pour cent pour nga gis benn jigéen Sénégal self made man génn album c'est rare ñoom ñëpp nag seen album ñi ngi ci biir euh, studio yi mais duñ ko nangoo génne donc comme nu ma ko mën a waxee awa saf dëxin ndaar saay mista saqata mëqata bëqata bëqata baara mbay ñoom xumaan ak ñooñu ñëpp ñii ñoom awa di ñoo leen coiffé musuñoo produire kuy rajaxe àdduna koo gis tey da ngay gis aux États-Unis Dacte Dri ñoo ñooy ndaanan ñii ñooy gor produire Fifty Cent Fifty Cent kalaate rajaxe monde bi go go genre yi rajaxe affaire bi ne noo am naa groupe ñu ne ko ñan la mu ne ji yu léegi comme man def ngeen ma milliardaire ma bëgg a produire ji yu nit génn ji yu nit produire ji yu nit ji yu am ay millions ñoom ñëpp doon ay superstar mais ñan ñu leen génne Dartudry Aftermath ak Slim Shady fef euh, Eminem Eminem mooy Slim Shady Dartudry mooy Aftermath Aftermath ak Slim Shady ñu booloo génne 50 Cent 50 Cent claté génne group am G-Unit G-Unit lekk xaalis 10 squad bi nga xam ne mi ngi groupe Eminem la Eminem rek lañ xamoon ñëpp naa Eminem Eminem Eminem waay <laughs> waay ñi ñoo gore non kaana yi dañ ñu jàngal jàngal ba sonn mais booy jàngal ay bet moom te xamuñu duñ mus a xam Eminem ne leen ama am groupe ñu ne ko ñan la mu ne d man Eminem bu ma existé ba ñu may wax xam nga kan moo ko waral mu ne proof you know man fan fans proof la koo xam ne day liggéey moom rappeur la Eminem day pour concert di seetaan proof te man ma dégloo proof sax gisuma lu yéeme mais Eminem pour mettre en exergue euh, proof doomu ndayam bi ki muy rabal mu ne proof moo de moo ma def rappeur proof moo ma fekk ci ghetto bi def ma rappeur proof mooy moom moo mérité li ngeen may li ngeen may taggee d waaw ab awa sap saf dëxin ndaat saay la awa saf dëxin ndaat saay awa saf dëxin ndaat saay awa saay donc Eminem génne D12 moo taxit ndeysaan D12 bu proof dee bu mu demee ci boîte bi ñu dóor ko bal fetal ñoom ñooy gangsters yi ñu dóor ko bal fetal proof Eminem dafa dof Eminem toog deux ans kenn gisu ko Eminem di jël ay Valium di nalaw ba ñu naan Eminem drogué Eminem dee na parce que xam nga kan lañ rey proof proof lañ rey proof lañ rey Eminem mel ni dof Eminem année boobu noonu dafa génn bu mu ñëwee dafa ravager lépp luy pri lépp luy prix luñ teg États-Unis Eminem rajaxe ko lépp luy prix meilleur album meilleur rappeur meilleur bu mu ko génnee ñu ne ko Eminem koo ko dédicacé mu ne proof rest in peace proof li yëpp yaa ko moom bu dul woon yow duma existe kan ngeen gis ci rap sénégalais bi kan wax leen ma ku ngay dem ci ab groupe ñu kii na la kii moo tax ma nekk kii moo ma def mu dee ma dof amatuma jàmm loolu da koy gis ci rafkaane bi every day all day every day all day every day all day boo bëggee gis hypocrite dem ci rab sénégalais bi jàppal rappeur na ko xuus jàpp ne ci hypocrite la buñ sax sonn buñ ñëwee dañuy xool gis ay jikko hypocrite ci moom ces gens là ils méritent rien xamuñu xamuñu sax culture represent represent gëmuñu ki ma sere moomuñu ko ab mbir bu ñëw la dab leen rek xamuñu ci dara maîtriser wuñ ko ku la gën a ingrat rappeur sénégalais la ku la gën a ingrat trahison fen soxor man bindal naa fi ay rappeur maintes fois ay texte barke alxuraan ñu taxaw di dédicace seen texte di wax waxuñu ma benn jour am benn wu leen di jël waa ji wax nu mu joobee album bi yëpp ma ne ko pour pourtant recognize bi ngay dégg ci rap rap bi recognize xam nga lan mooy lan mooy reconnaître la valeur d'autrui reconnaître la reconnaissance de l'art de l'autrui de de l'autre kaana yi dañ dañu romb quoi ñu fi jot a xam rab sax mooy ñu doon déglu kaana yi bu weesoo loolu ñi ñi ñi ay waga lañ nii ci rab bi ay taqale dañuy taqal rab bi xamuñ dara ci rab recognize realize and recognize loolu la wax realize and recognize kaana yi ñooy wax loolu yaa beere realize and recognize yaa beere realize and recognize adduna bi booy sawaay rab rab moo tax man moo xoolee rab ma ñii dama leen romb quoi bu ñuy jox ba buñ ma tardel quoi rab bi du ma leen sax déglu dañ may tardel wuuteng fuñ fi fanaan fii la ñuy kii mais bàyyi leen rab bi yéen Sénégal moomu leen rab xamu leen sax luy rab ay égoïste ngeen ay ingratitude ingratitude ak égoïste rap Sénégal la fekk baax ku la gën a nekk traître nga ne ma kii la ñoom ñëpp il pue de la trahison il pue de la trahison de véritable motherfuckers moo tax ma focus jàgg ji ci biir caga ji ci biir góor jigéen yi ci biir mouvement de focus mouvement wu focus ma ne mouvement de focus rab naa ko sax dagg ji ci biir caga ji ci biir góor jigéen yi ci biir mouvement de focus hypocrite yi ci biir yi ci biir rambaaj yi ci biir waññel gel yi ci biir mouvement de focus ay vraiment de focus ñoo dajaloo xamuñu rab xamuñu dara ay vraiment de focus koo ci dimbale kooku ñëw di dédicacer ay album di wax ay album boo xam ni waxuma te pourtant maa bind texte bopp ba geen ku koy invité mu ñëw di wax ma ne ko pourtant booy texte bi maa ko bind waaye ne ma ne ko billaahi defuma ci album di dédicacé waxuma te pourtant texte bopp ba genn maa ko bind waa ji dem invité ko ci benn émission di ko laaj mu muy tatone mu tiit xam parce que da ko bett ne ko Mollah moo bind texte bi Mollah Morgun mu naan ni ah waaw waaw waaw mais xam nga euh, xamul sax nu jaaxle génn rek wooma waaw mais jaajëf fay naka mu mais eh, da wax kii yaa bi di taxi bi ma ne ko yee man maa ko wax waaw nu mu demee noonu ma ne ko mais da nga da nga ingrat da nga taxaw ci ab tele di wax sa album yëpp te waxoo ma te ma bindal la texte bopp ba geen muy cartonné munoo ko taxaw ah, ah, loolu mooy recognize reconnaître ma loolu ngay wax mel ni musuma cee def dara alors man maa ko ne maa bind texte bi moo tax bu mu la ko laajee parce que kooku doon préparé émission bu ma woowee loo xam ci tel ma ne ko pourtant texte bi maa ko bind bopp ba ngeen non nangam nangam noo di expliquer ma ne waay waay bu la ma sonal bind sama texte ña laaju ma la droit d'auteur laaju ma la dara mais kam amal reconnaissance ne kii maa bind texte bi bëri na fi rapport yoo xam ne dama leen bind lii texte duñ ma site ci dara parce que c'est des ingrats c'est des hypocrites moo tax ma ne noonu xaaral ma gën a soobu ci diine gi daw ñii parce que boo leen di jege dinañ la dox xelu hypocrite bi xel bu bon bi bu ñaaw bi dinañ la contaminer moo tax ma ne xaaral ma concentré quatre-vingt-dix pour cent de mon temps ci allahu subhanahu wa taala di jàpp di julli di wird di di di gëstu gis ay borom xam-xam bokk ci group yi ñi may envoyé ay mbir yàlla nee na li yenent bi nee na lii ma yokk sama xam-xam ci diine ndax ñii bu ma leen toppee enfer laa jëm ay hypocrite ay fenkat ay nit bon yu booloo boo fa duggee boo deful ndànk dañu def hypocrite moo tax ma leen teggil sa tànk ndànk balaa ñu laa sànk mouvement de focus farak ñoom maa lànk fukki bukki bënn bët yi benn ci laa biir réel yi ci ale yi feeg seen gàlle yi seen xelu xale yi gësëm sëlëm saale yi mouvement de focus farak ñoom maa lànk du far ak ñoom ay maar focus lañ boo leen boo jaxasook ñoom ñu wàll la seen i jikko yu bon am na nag ay réel yu fa ne ay réel négus bokkuñu ci game bi doo leen déggal dara musoo dégg daara ji moo leen ëpp possibilité ëpp leen opportunité gën leen yore high stand musoo leen dégg présidence musoo leen dëgg ñuy ñuy dil musoo leen dégg ñuy mafia musoo leen gis ñuy fen musoo leen gis ñuy lekk xaalis lu ñëpp bokk jaara ji doo leen ci dégg de ak ñoo gore foo jàppee awadi nga jàpp foo jàppee malal nga jàpp foo jàppee simon nga jàpp foo jàppee matadoor nga jàpp ak seeni cogg ak seeni suq yu ñu àndal pour di la jox weccet suq yu lay jox donc léegi dañuy dem ci impacté ils disent que ils sont impactés <laughs> je pense que impacté jamono ji bu dee way ñi impacté sax ñoo joxe rap ban rappeur moo fi gën a impacté Wally Seck ki nga xam ne chaque samedi mu dóor concert festep xaalis bu ko gaa yi di jox rek bu ko gaa yi di baatere rek mun naa jënd cinquante groupe rap yuy yuy concert Wally Seck xaalis bu ko gaa yi di baatereel nii rek di ko ko jox mun naa jënd cinquante groupe rap yuy concert Sénégal ku gën a impacté kooku Wally biy door dóor chaque samedi di gagné des million ku ko gën a impacte impacté maa leen ko laaj ku ci am na ma wax ku gën a impacté Wally Seck kan moo gën a impacté Pape Diouf Pape Diouf bi nga xam ni bu dóoree concert day fees tep tep guichet fermé pourtant Pape juuf génn na dix millions joxe dix million booy Pape Diouf booy laay wax ay booy ndaw lañ Pape Diouf je me rappelle très bien mi ngi dëkkoon sama ko ñaari tali di football ci mbedd yi nekk booy bu ndaw Pape Diouf je me rappelle trop bien Pape Diouf waa ñaari tali la boobu mi ngi wayantu sama kanam ñaari tali ñoo dëkkandoo di football ci mbedd yi bëgg affaire football kan moo gën a impacté Pape Diouf bu dul dëgg rek ne leen ma waaw ku daq concert ban rappeur a dàq concert Pape ban rappeur moo dàq concert Wally Seck ñi impacté wu ñoo génne joxe ay millions ñi impacté wu ñoo joxe ay millions Pape Diouf booy la sama booy la quand je dis booy man laay wax parce que noo mag mag mag mag mag sa baay booy nga ci moom wala sa grand booy nga ci moom mun ngaa mag sa baay mun ngaa mag sa nijaay mais munoo mag sa mag donc da ngeen di xam fu may waxee dafa yomb ko je peux pas répondre à à des bêtises soyez un peu mais ngir yàlla seen bopp yi xel lay xel kenn du ko lekk pour xalaat la booy Pape Diouf non Pape du mag du du booy mag la man maay wax Pape Diouf sama booy la je parle ñoo ñu jël seeni million joxe rappeurs yi di wax waxu impacté léegi ma laaj leen ay question kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi ki nga xam ni day ndeysaan bu méttee ba metti mooy taxaw ci bopp koñ ba guddi gi ñëpp ñi nga xam ne dañoo am problème mu reer wala seen seen poste diisul ñu dem jëndi cere kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi ci bopp koñ bi fi nga xam ne huit heures léegi ñu tëddloo ko huit heures jaaykatu cere gi répondez moom jaaykatu cere bi kan moo ko gën a impacté guddi da lay génn kan moo gën a impacte jaaykatu cere ji question laa leen posé moom guddi lay liggéey kan moo gën a impacté jaaykatu tàngana bi moom guddi lay liggéey jaaykatu tàngana guddi lay liggéey ñëpp fees ci tàngana bi dóoral ma mburu cent franc defal ma nambe defal ma ci ñaari ñaari ñaari nen defal ma ci mayonnaise jaaykatu nambe bi kan moo ko gën a impacté si mën nga mag sa baay parce que sa euh, sa rakk papa sa baay la n'est-ce pas sa rakk papa sa baay la leen may déglu nag parce que li ma wax du sax xam-xam bu sori mais boo may déglu mun nga foog ne je suis philosophe fekk du ma dara li ma lay wax c'est facile sa rakk baay sa baay la mun nga koo mag wala munoo ko mag mun nga mag sa baay bëgg ngeen ree loolu mun neex <laughs> waaye da may déglu xam-xam laa leen di wax li ma leen wax su du xam-xam gu sori du xam-xam bu sori kan moo gën a impacté jaaykatu tànganam kan moo gën a impacté débiteri bi nga xam guddi lay jaay kan moo gën a impacté jaaykatu cere bi kan moo gën a impacté jaaykatu mayga bi kan moo gën a impacté jaakatu fonde bi nga xam ni fonde rek ngeen la ñuy dundee ñu fu mu dëgëree fukki dërëm fonde juróomi dërëm suukar rappeurs yi xam nañ loolu fonde ak cere rappeurs xam nañ ko seen biir yëpp koo ci diagnostiqué fonde ci ne wala cere hamburger c'est rare xanaa dóorkat yi donc kan moo gën a impacté jaagatu cere bi ñoo yoru dara ndeysaan mayga bi yoru dara mënutul jaay mbëkk rido yi ay mbëkkatu rido lañ kan moo gën a impacté jaagatu nen jënd sa nen euh, cent franc wala euh, euh, def def def ci def ci kii poobar dóor dox sa dox naan sa ndox fanaanee nañ ko kan moo gën a impacté boutiquier bi nga xam ne moom guddi ñu tëj ko kan moo gën a impacté borom fast bi nga xam ne guddi gi la gaa yëpp di ñëw léegi huit ñu toog seen kër ak boroom kër yi nga xam ni ñoom gu benn lañuy benn plat la ñuy def par jour loolu la ñu wooyee gobar jaase gobar jaase loolu la ko olof di wooyee maanaam nga def benn plat di ci añ te di ci reer gobar jaase kër yi duñ teg reer guddi gi ñëpp tasaaroo ku nekk di wuti loolu lekk kii jënd fukki dërëm cere juróomi dërëm meew kee jënd fonde def ci suukar kee jënd loolu moo am Dakar bu dul dëgg ne la amul rab bi fayul gaa yoruñu noonu la ñuy noonu dundee bu rek si dóoree cere ak meew moor gën mi ngi dóor fee fondek suukar yàlla bu mu ci def tika dege fonde suukar tika dege mu diis bu ko dóoree ci biir bi mu diis këndëng mu naan ndox tëdd guddi gi yëpp mu nekk ci taxi si yoo yoo yoo yoo yoo yoo màtt ko yoo jegewu ko yoo yoo gudul gudul jeex borom tàng na mi nag rappeurs yi est-ce que war nañ mu am nañ war nañ mun a am ngor di wax ay waxu impacté quoi mais c'est extraordinaire et il parle d'impacté te lépp nag G7 bi la au nom du rap ñooy génn di di ñu waxal di ñu fenal di ñu tilimal di ñu taqal bu ñooy bu xaalis bi génnee ñu ne toy dóor niñ demee palais te tàgguwuñ niñ génnee palais te tàgguwuñ noonu la financement yi di ñëw ñu séddoo waat ko tuñ tàggu nii rek lañ ko jàppee nii rek lañ ko jàppee waaye lii jëm na kër yéen ni ngeen di toog di ko xool ma def sama live démb tey rappeur yëpp woo ma respect grand respect respect nos teewal nga ñu nos grands ñëpp di bëggee et je m'en fous trois cent millions yi un franc musuma ko ci lekk beneen trois cent millions un franc musuma ko lekk six cent millions un franc musuma lekk maa ngi dund ba léegi ak ay lex yi rëy di lekk ba suur di naan ba mandi donc man bu xaalis bi génnoon soxla ma ko dama koy may rappeurs yi soxluwuma ci dara donc damay xeex pour yéen parce que man sama xeex dama ne pour future génération bi la du pour keneen kon sama combat désintéressement laa koy def soxlawuma ci dërëm li may xeex bu génnoon tey soxla kan moo gën a impacté les prostituées cage ji nga xam ne guddi la ñuy génn ci lëndëm bi mun a dor xonet maa ak ak ak wow la ñi wut fu ñu tooyalee ah cage yi nag am nañ carte ils son légal c'est légalisé elles sont légalisées mais cage ji ñoom ñu instant yi ñoom ñu ngi ñoom c'est impacté lañ parce que guddi gi gars yi doon guddi gi borom jabar yeeg borom yooyu yu sew yooyu doon loqatu làqatu dem gis benn caga yóbbu ko fenn dóor jox cinq mille wala dix mille kenn génnatul huit heures caga yëpp a ngi toog seen biir kër ku leen gën a impacté oui dañu lay légaliser ah liggéey buñ légaliser la dañoo yaram ay këyit comme Fou malaat daa am ay këyit Simon am ay këyit Awadi am ay këyit caga ji tam dañoo am ay këyit ah gënu leen leen légal yéen ay caga rappeur ngeen ñoom ay caga clandestin lañ ay caga mbedd lañ safurla du ñu clandestin yéen ay caga rappeur ngeen ñoom ay caga lañ caga mbedd lañ dafa am caga mbedd ak caga biir kër yéen ay caga biir kër ngeen yéen rappeurs yi yéen ñi may wax nii g bi ay caga biir kër lañ dañoo dañoo légaliser wu mais caga mbedd yi ñoom tam dañoo légaliser wu kan moo leen gën a impacté il faut arrêter war ngeen rus sax di taxaw di wax ay waxu impacté yéen doo leen rus quoi amu leen ngor amu leen jom amuleen leen fulla mais bu sénégalais yi doon def ku ku ku dugg te laaju leen génn trahir leen ñu ñuus la ñuus la ba nga saw sa sa sa tubay kenn du ko dolleeti mais Mollah Morgun rek ngay dégg muy wax parce que faalewu leen dund leen fuck shit faalewu leen god damn it yëgulu leen yaramam ko don't give a fuck about lu may wax dama koy wax awma ci état d'âme awma ci yërëmtalu awma ci rustal ndax dëgg mooma ñor ma koy wax sénégalais yi bégguñu ci yéen yéen rappeurs yooyu noonu yéen demoon pale sénégalais yi kontaanuñ ci yéen mer nañ loolu tey àdduna ak li ci biir tous les rappeurs quatre-vingt pour cent yi woo nañ ma ñii maa ngi ne woon ci waar ba mun ma leen jël maa ngi gis ay appel manqué tout ça tout ça xoolaguma sax message yi c'est des big up bro respect bro kontaan nañ bro vraiment yaa ngi teewal vraiment merci yal na la yàlla fay di ma ñaanal koi yaa ngi ñuy waxal xam nañ ni gar nga ci sa bakkan yaa ngi ñuy waxal ngir yàlla monsieur le président ñi fa ñëw noonu ay politiciens lañ ay fenkat lañ ay tekkatu dil lañ ay waraxeur lañ ay waraxeur lañ warax rek lañuy def ils sont que pour le type ils sont là que pour leur type digestif kon monsieur le président woo leen perte temps la amuñu crédibilité amuñu respect ci mbedd mi buñ la nax buñ la nax on les appelle des waraxaan waraxaan waraxaan mooy lu ñu nga warax ko jàngoro xuuxaan nga yor ak jàngoro ñambataan mooy comme coronavirus les les corona là les maladies di euh, du corona les virus du corona ñi ñambataan dañoo am ñambataan xuuxaan ces rappeurs là ñambataan xuuxaan c'est des waraxaan du game teer warax deer ñu warax fesman ñu warax fonds des cultures urbaines ñu warax fonds ministère de la culture ñu warax fonds financement ONG impérialiste ñu warax damn de véritable waraxaan di game warax rek lu waaye liggéey ba ñàkk ba toqal ñu for warax des waraxaan les waraxaan di game des traîtres ils n'ont pas seulement trahi le hip-hop mais ils ont aussi trahi le peuple sénégalais le peuple sénégalais maay géwélu rappeurs yi di géwélu sénégalais yi sénégalais yi buñ soxlaa maa taxaw di def junni junni live buñ jàppee gi Marius Sagna chaque jour ma def live génn ci mbedd yi bu ma ne Sénégal maa ngi ci mbeddi yi maay géwélu Sénégal romb naa géwélu rappeur ci loo gis luy laal Sénégal rek maa ngi ci moo tax dañoo wa ji ci lépp lay wax lépp lu laal Sénégal ma taxaw lépp lu laal sénégalais ma taxaw gar ci sama bakkan nag man la gar sama bakkan vouloir être l'ami de tout le monde on finit par être un ñoom ñoo fi defoon dox ak sa gox wax sa député wax sa maire tey dañ leen soxla ñu def joxe ak joxe sa gox joxe sa biir gox dox ak sa dox lu ñu yaroon ay këyit bu ñuy distribuer ay flyers bu ñu jàppee Guy Marius Sagna ay flyers lañu yoroon jamono ji sénégalais yi soxla tuñ flyers xam luñ soxla alal xaalis parce que dañ leen impacté tout le Sénégal lañ impacté ni ngeen doon doxee yor seen i flyers ah comment dire Simon naan nii Simon flyers naan ni joxe flyers yi Simon naan ni joxe fa jël leen jaay caaf mairie jaay tege-tege mairie jaay ceeb mairie jaay dugub yëpp ngeen yore seen flyers di wër ci dëkk bi Simon di jaay jëree flyers police yi faale wuñu leen léegi nag am leen ngor na ngeen doon joxee flyers yi ak kayit ngeen amaat ngor jël place u kayit yi ngeen def ko ay billets comme simon moom nii la doon defee nii la ko doon defee foog affaire bi leer si ngi nii flyers waaw jël la <laughs> faale plus ñu faale plus flyers am maire maire jaagat caaf am maire jaaykatu euh, ñebbe am ñoo xam ne mënuñu liir maire jaaykatu euh, am am bala am police su ñëw nañu ci police waaw ok askan wi moom saa yoo leen soxlaa use leen léegi nag à la place des flyers on a besoin de billets Simon a ah, yow sa gàngoor yi demoon ministre ministère de la de la santé ba dóor fa ay millions naat leen ci ngor dox ak sa gox doon joxe sa biir gox defaat leen projet boobu joxe sa biir gox nga jëlaat flyers bi à la place des des flyers mu doon ay billets de banque nga wëraat nu ngay wëree nga am maire am maire maire am euh, pa mon père teel ngir yàlla man maa la ko ñaan Simon ci laay xam ne ay gor ngeen ci laay xam ni ni lu dëggu ngeen dox ak sa gox joxe flyers sonal askan wi di yuuxoo ko tëb di dal ndax bu lewal ay alal léegi gore leen ngeen doxaat noonu ci projet bu tudd joxe sa biir gox ngeen dajale ay millions jox ko gox bi foofu lañ leen di xaare du leen may dara parce que dëgg rek waay waay ngir yàlla génnaat leen may wax ak kenn ki mu ne ma waa bon c'est que man xam nga euh, tel moo ma woo biir palais te sama gaayen la te lii ak laala la te laa la ok d'accord waa kooku sa gaayen la moo la woo nga woo sa g nim la wooyee ba nga woo sa waa G7 nest la wooyee ba nga woo sa waa G7 tamit lan moo waral le nouveau type de salopard lan moo waral non dama bëgg ñu gore parce que rappeur gor la rappeur dafa war a doon gor ñun suñu si suñu suñu suñu professionnel bi dafa bëri ay traître il faut ñu taxaw jihaad ak ñoom nee naa leen fitna laay def fitna lu saay doon wax fitna mean fight to impose the truth in a nation of Allah Allah akbar fitna mean fight f bi fight i e bi to impose tee the truth i e bi n bi in the nation a bi of Allah fitna mean fight to impose the truth in the nation of Allah allahu akbar man loolu mu laay def fitna bu ma ñëwee day mel ni fitna laa ñëwee fekk dama ñëw pour imposer la vérité rien que la vérité et toute la vérité aw ma ci baale aw ma ci yërmande aw ma doomu aw ma ci doomu baay bu dëgg taxawe aw ma ci xarit awma ci àndandoo je négocie pas fight to impose the truth in the nation of Allah allahu akbar allahu akbar lii laay dund lii laay dund mooy sama state of mind sama état d'esprit fitna laay dund yee luy faraxaan waaye luy faraxaan respect léegi comme nu ma ko mën a waxee am leen ngor demaat ngeen génne ci li ngeen yor ngeen seetloo kook askan wi te bañ a laal li askan wi liñ dimbalee askan wi ngir yàlla waay waay gore leen ñaan naa leen ko gore leen ngir yàlla rappeurs yi waay waay bu askan wi waay waay boo leen yokkul gumba boo ko saraxul bul këpp yàlwaanam sénégalais sonu nañ sénégalais yi liggéeyuñu kër yi da ngay dem ñëpp dans l'informel la ñuy yëngu ngir yàlla dimbale leen askan wi je cherche pas d'amis je cherche pas d'amis mes amis resteront mes amis ma xamee rexti ba léegi dañuy musa nekk mën duñ gisantewul bu ma xamee ombre ba léegi ombre man maa ko jëli gàllem pour ñu def sound maa ngi ko xamee à travers jëf ba léegi mus ñu am problème man soxlawuma wuruma xarit wuruma xarit benn xarit laa am muy suñu boroom benn xarit laa bëgg kenn rek laay sàkku mu doon sama xarit muy suñu boroom subhaanahu wa saa su ne maa ngi koy jéem a sabbal pour mu doon sama xarit bés bu yàlla doonee sama xarit waay waay dem leen waay waay dox leen dara yëngalatuma kenn lay sàkk pour mu doon sama xarit barke alxuraan wutuma keneen muy allahu subhanahu wa taala ay yàlla maa ngi lay ñaan nga doon sama xarit yow kese doy nga ma xarit yow yaa dul wor yow doo wor yow doo trahir doo bàyyi kenn ginnaaw yàlla fu mu koo doon xaritam ni yeneen yàlla ibrahim lijjanti reyante ba doon xaritu yàlla man de bugg naa doon xaritu yàlla lu ma dese sama dund mooy góor góor lu jëm ci yoonu yàlla ba yàlla fekk si ma moom tamit loolu rek moo ma ñor li may joxe coronavirus nañ dellu ci coronavirus wax leen ma kan moo nekk senegaal ku ma njëkk a wax mbirum coronavirus ci rab bi je vous pose cette question wax leen ma man Mollah Morgun Sénégal un million de rappeurs ban rappeur sénégalais moo ma njëkk a éveillé conscientisé ci coronavirus ñuy suivre sama live xam nañ ma ñëpp maa njëkk a wax encore une fois sénégalais yëpp may déglu buy buy fen rek ne leen ay kàcc la keewoo la ko njëkk wax Sénégal ba teg daj képp ku fay rappeur ku yàlla bind sàkk la nga yor micro maa fi njëkk a wax coronavirus man Mollah Morgun boobu coronavirus mi ngi Chine Wuhan di fa rajaxe demagul France demagul Espagne demagul Italie ñëpp nag nangu nañ ko ñu doon seetaan live bi nangu nañ ko coronavirus de bu may wax coronavirus demagul leen de ñiy live ak ñiy aimé ñu xam nañ ñu suivre nañ noppi ñuy suivre samay live xam nañ maa fi njëkk a wax coronavirus ci képp kuy rab maa fi njëkk a sensibiliser coronavirus ci képp kuy jël ni micro. boobu coronavirus demul France demul Italie rayagul kenn mi ngi Wuhan di leen daane étudiants yi seen rab sénégalais lu muy ngan ngan yëpp sama live yi man lañ xalaat. association des étudiants sénégalais de Wuhan contacté ma man Mollah Morgun à travers kenn koo xam ni mi ngi jóge Chine ñëw bu mu ñëwee ne leen Mollah Morgun moo fa nekk di wax Mollah Morgun la àdduna di déglu seen message boo leen mu jàll boobu seen i papa sax defaguñ conférence de presse boo leen bëggee mu jàll contacter leen Mollah Morgun waa ji dafa dañ ko may jabar décembre merci beaucoup dañ ko may jabar buñ ko mayee jabar ñëpp a ngi témoin moom kay tey moom dëgg rek xool leen message yi ñii ñëpp ñu ngi témoin fe mi ngi fii mi mi la moom kay mi ngi nii mi ngi mi ngi sama Facebook boo leen demee sama Facebook soriwul sax décembre maa ko njëkk a wax je défie tous les rappeurs sénégalais tout le rap mouvement du rap sénégalais maa njëkk a wax coronavirus fii Sénégal njëkk a def live spécial coronavirus di contact di am contact direct. contact direct n'est-ce pas am contact direct ak les étudiants de Wuhan Chine ñu wax ma seen soxla ma jël seeni audio tek ci live bi ñuy déglu senegal yëpp di déglu Sénégal yëpp di déglu adduna yëpp di déglu étudiants yi joxe seen idée ma bëggoon leen jël en live ñu ne ma sax ñu ngi waxtaan ak seen i parents pour ñu def ma ñëw wax leen Sénégal ne leen seen i parents dinañ def benn conférence de presse ñëpp seen conférence de presse bi ci la Sénégalais commencé coronavirus coronavirus coronavirus ma woo benn spécialiste benn boy bu aay Madiop nekk ci Facebook bi Madiop di def ay live Madiop non il a décrit toute la situation bu am tey non Madiop vraiment big up spécial respect à Madiop Madiop Diop ku am xam-xam ñëw toj coronavirus bi wax ci coronavirus bi développé coronavirus bi situation bi am yëpp Madiop doj na ko allahu akbar lépp la wax <laughs> sénégalais moo tax am na ay bopp yoo xam ne du ma mus a référé wu ci yenn commentaires yi ay ñu amul bopp yi moo tax man yàlla moom ma dimbale quand je suis je suis les intellectuels te dama leen di gis à travers les commentaires am na ñoo xam ni sama best gaayen lañ non dañu am xam-xam te fu ma leen xamee mooy ci sama live yii ñooñu laay suivre c'est mes amis ma def leen ami ñi partager ay ay information di partager ay xam-xam di waxtaan vraiment respect à ma kontaan ci ñoom ma créé benn groupe WhatsApp cellule des intellectuels ñoo xam ne dama bokk ci ñoom ñi xalaat moo laa defel nii waxeel nii yokkal fii wàññil fii Maguette jóob merci beaucoup Maguette Diop Maguette Diop Maguette Diop respect à lui Maguette am nga dëgg wax nga loo xam ni musul deñ te yàlla ngi lay gën a jox dëgg Maguette Diop ma dugal ko mu wax ci coronavirus bi lépp lépp lépp bu muy wax confiné confinement bu mu koy wax Sénégal sax xamul waxu kenn waxu ci confinement confinement Madiaye Diop respect à toi am nga dëgg ba gars yi naan waa kii dafa dof wala kii lu muy wax nii parce que c'est un visionnaire c'est un lanceur d'alerte sénégalais xamuñu visionnaire xamuñu lanceur d'alerte man lanceur d'alerte la ma invité Madiaye Diop mu nekk visionnaire c'était le dimanche 2 février mais avant boobu en décembre wax naa ci mu Wuhan man chaque jour yàlla may ma dëgg ci gars yi dama leen jiitu na un lanceur d'alerte bu leen jiitu yàlla di ma defal ndam ci wax ji moo tax ñeew ma ñu génn na dañuy message man bu may message ñoom ñu seen kër yi ñu ngi wax Guy mari Sagna may boole combat Guy Marius Sagna ak combat wu coronavirus bi live coronavirus Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna coronavirus boobu Sénégal a ngi taxaw naan nii may invité Madiaye Diop muy tab xam-xam goo xam ni <laughs> ñiy dem yàlla di ma may dëgg ci yàlla di ma defal ndam billaahi wallaahi dama leen di damay toog seen kaw rek bëre bëre damaa téye ngemb gi ci yéen dañuy bëre ma téye ngemb bi ba dëgër ngeen di wër amu leen fenn foole ma jàpp mel ni kuy xeex ak taa ku def taatu nen nga sol sab ngemb ma téye ci ngemb bi moom na ngay wër foo jàpp gars yi di wër fuñ ma jàpp kenn mënu ma jàpp fenn te saa yi wax ji amee ma ne am naa dëgg ci yéen li ma wax waxu leen ko maa leen jiitu ca coronavirus la ma ca wax waxu leen ko ba ma kay wax waxu leen bu may invité les jeunes étudiants woo Wuhan xalaatu leen ko sax ma jiitu leen ma romb leen moo tax ma doon dof seen kanam leen waa kii wér na kii wérul dama leen a romb nawloowu wuma leen nawloo wuma leen dama leen romb maa ngi ci high level dinaa leen nawloo yéen kii wér na seen maam sax maa ko gën a wér ndax la may wax jiitu la seen juddu waxuma seen baay de seen maam sax maa ko gën a wér ñay laajte kii wér na boo ma dugalee sa kër xam ba xam wér naa wéruma ba sa baay toog ci saal ba sa toog nga toog say rakk toog say mag wër ma tojal leen ba sa baay dugg dugaat néegam sa yaay dugg néegam ñépp tasaaroo na ma jëlal kër gi këyitu kër gaa ngi nii te nga xam ne wér naa wéruma sa bopp bu jiggi boobu noonu musoo gëstu say bët yu gàtt yooyu musoo voyagé liiroo kat livres amoo xam-xam ngay laajte ba xam man wér naa woo ma ak sa baay ak sa ak yow ak say mag ak say rak ngeen toog ci saal bi débat boo leen tag barke alxuraan ma toj ba sa baay dellu néegam génn génn kayitu kër ga jox ma billahi wallahi wa man ma jiitu leen ci àdduna jiitu leen ci jamono di wër di gëstu yeneen di lire yeneen di voyager comme Armstrong di dox ci kaw lune wi comme Armstrong di dox ci kaw lune bi ngeen ne ci kaw suuf di cëppi cëppi di latte ba xam kee di dox nee ba xam wér na xoolaat leen seen xel yi waaw waaw xoolaat leen seen xel yi ay kuy laajte moo laa wax wér naa wér woo ma sa surtout defi woo ma sa biir kër. nga teg sa baay teg sa yaay teg say mag teg say rak génne tem yow laay jox nga génn tem ma tojal la ba sa baay dugg ci kër gi génne kay kër dama am bis ni que tey jébalu nañ kaay leen raam jébalu ci waa ji da ngeen a dof bu ngeen juddoo ba léegi amu leen ku mel ni man di xalaatee ni man di waxee ni man jiitu leen seen jamono moo tax ma tëb jëg ngeen ne kee wér na moo tax Cheikh Ibrahima ne la ah waaye yàlla mbaa jàmm nga am dofe ci nit yi waaye ni fa te yàlla de daf ne yàlla mbaa jàmm nga am yàlla ne eh, gars ne yàlla mbaa jàmm nga dofe ca ya ca waaye ni dafa yàlla chèvre akay akay góor yàlla ñu war ne ne yàlla mbaa jàmm waaye yàlla yow mbaa jàmm nga am sa jaam yi de dañ ma umpule ña ngay laajte ba xam dof naag wala mu leen dofe ca nit ya waaye nit dafa yàlla man loolu laay dox tànku chèvre loolu laay dox dofe di ma boole yéen ma leen di bàcc rek ma leen di bàcc rek may wax te du teggi may wax te duñ dindi may wax ñuy daw di dugg ci kër yi may wax ñuy mantu may wax ñuy yónnee ay nit di woote ngir yàlla jàpp ci waxal ak moo laa chaque jour que Dieu ma defee live ña may wax dinañu yónnee seen i xarit seen i am di jàmm seen doomu ndey waxal leen ak moom kenn du teggi nag waxaguma fi wax ba kenn ñëw ne waxul dëgg waxaguma fi wax ba kenn ñëw ne je maa ngi koy porter plainte ñu ne LGBT maa njëkk wax bu may toj LGBT Sénégal yëpp a nga ne nii xamuñu sax luy LGBT quatre-vingt pour cent yi xamuñu LGBT may toj LGBT ñu naan def ci ay exposé boo xam ni bu Wally Seck solee ti set ba ma ñëwati dugg ci temps bi roode génne Moustapha Gueye lii nday ndaag nii gars yi woote waa jàpp ci waay waay xoolal Moustapha Gueye doom ji kii tantam bi umpañ bi shit ne la Moustapha Gueye mu defar addunaam ne ko mu bàyyi yu muy dugg bu fa dee du mucc ne la ndey ndaak mu bàyyi li muy def bu fa dee du mucc ngeen naan ma noppil ko leen xoolal sama gémmiñ gi yambalang la def waa kan moo naan ma noppi xool yàlla na ma wax loo ma wax lu wutaleeg muumee ba yow gémmiñ la yor làmmiñ la yor bëñ la yor mais mënul wax lu ko wutaleeg yow yàlla dox la xéwal ne la waxal ak jaam nga war a jox ak wax ak jaam yi ñu la noo bul wax munuma ko ndam li kay yàlla di ma ko jox rek ma leen koy bàcc rek ngeen nangu ngeen ñàkk nangu je m'en moque éperdument maintenant lu may tëjee mooy sama mot de la fin les jeunes rappeurs yi nga xam ne dañ leen émaillé ci deal bi Dip xale bu ndaw ku am talent ku am yar ku am teggin ku baax koo xam ni foo ko woo mu wuy la dib dundu gis yéen ak les jeunes rappeurs yëpp tay ji Chine dub dib dundu gis euh, Ngaaka Blindé mon mon mon fils Ngaaka Blindé parce que respect euh, papaam sama grand la je l'aime le respecte Blin Ndiaye le père de Ngaaka Blindé Blin Ndiaye sama grand la ci kanamam yàlla laa yaroo a ñaari tali Orléans mooy koñu Boy Bambara Blin Ndiaye respect à lui mon grand Blin moo jur Ngaaka Blindé Mbaa Blindé juddoo sama kanam ñaari tali Ngaaka Blindé juddoo sama kanam ñaari tali bu dul dëgg dem leen wax woo mu ñëw sama kanam la juddoo ñaari tali Blin Ndiaye mooy baayam mun naa la wax ay maamam ak fu ñu doon liggéeyee bu ñu doon ñëw dañ doon indi sérité indi ñu charité yu bëri ñu dem foofu dem di jëli charité yi donc waxoon naa ko encore Ngaaka Blindé moom a gën a jege ci rappeurs yi ku ma bëgg la parce que dama màggee ci këram ci kanamu maamam ak baayam je l'aime bien Ngaaka Blindé sama doom la te maa ngi koy ñaanal réussite maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko ndam lu ma koy mën a conseil mooy je conseille à Dip à Ngaaka Blindé à Akhlou Brick Paradise mes mes chers frères mes chers petits frères à Taïgi Chine et cetera et cetera de faire beaucoup attention ci mag yi di leen jéem a fréquenter gëmuñu ko ils font de la récupération ñoom seen carrière dafa jeex léegi ils c'est des vampires assoiffés ils ont besoin du sang neuf dañoo carburé ba sonn soxla di cent neuf donc ñooñu dañoo soxla ay xale il faut faire beaucoup attention ay mag lañ yoo xam ne dañoo yor ay jabar am ay doom am ay charge dañuy daw dépense leur carrière et derrière eux Omzo Omzo Omzo ci nga bokk ak bépp xa waa Tamba waa Diourbel waa Kaolack waa LG ñëpp bàyyuma kenn ñi ma tudd ak ñu ma tuddul les jeunes yéen rek laay conseil yi moytu leen genre grand yi intérêt rek lañuy def te ils ont besoin du sang neuf amatuñ crédibilité dinañ wul ay booy yuñ use teg leen ci kanam pour lekk xaalis bi te duñ leen jox dara dañ leen di taqal rek te booy yi dañoo am bëgg-bëgg bi ku mel ni euh, sama rakk aussi ñoom OMG ñii leur carrière c'est des pères de famille ils ont des charges leur carrière et derrière eux, c'est des oscons. Yen, vos carrières sont devant vous. Écoutez bien. Vous êtes des new school, vos carrières sont devant vous. mootu leen ku leen taqal mootu leen ku leen tërëmal mootu leen ñi leen wan lirical en fait partie ku leen di jege di leen sóob di leen gëmloo dara gëmu ci dara dañ leen di use gëm leen seen bopp ay self made man doon leen ay self made man def lu ñu naan l'autodétermination fight ba doon li ngeen doon def seen bopp li ngeen doon pour bu ëllëgee kenn du ne maa ko def lii wala maa ko def laa loolu maa leen ko ñaan combat nag day am objectif am si taalibe e c'est des hauts school dañu am sarge ay pères de famille et cetera et cetera ñooñu intérêt la ñuy dox leur carrière sont derrière eux Vous, vos carrières sont devant vous. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention ngeen concentré wu ci seen carrière ngeen sëgg ci liggéey bi bu leen déglu kenn gumba leen tëx leen gëm leen seen bopp jiital seen aar nekk ci day amu leen duñ leen amal benn njëriñ lu dul use leen. gëm leen seen bopp gëm ni liggéey mooy fay gëm seen aar nekk ci liggéey ba yàlla dimbali leen gëm leen yàlla wóolu leen yàlla yaakaar leen yaata yàlla jiital leen yàlla teg ko ku dul yàlla loolu man maa leen ko conseil am na ay grand yu baax nag soxlu li ngeen jege leen sax dina kii mun leen conseiller xam ngeen li ngeen di segg li ngeen ciy jël ngeen jël ko ngeen nekk ci li ngeen nekk loolu mooy sama mot de la fin ngeen moytu rappeur businessman yi per de famille ñi nga xam ni charge da leen di bëgg rey fay courant fay ndox fay appartement à louer wut essence bi ñu def seen oto wëndaalu taxawaalu ñooy bëgg fonds financement DER TER FESMAN lu ñëwut ñu ñu nga ci moytu leen ñooñu wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barkaatu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di màggal ñëpp di ndamoo ñëpp di tiitaroo ñëpp di leen wax ni euh, wax ji bu dee lu baax ci askan wi yàlla na ko yàlla yeggee ci askan wi yàlla matal ko léegi nag dafa am xabis sama doom ndey lu ma posé question nee na lan mooy solution benn solution laa wax wolof moo ko doon wax mu ne li ngeen bokk te mënu leen ko seddoo lu ngeen bokk te mënu leen ko séddoo xool leen nu ngeen koy defee pour ñëpp jariñoo ko bu fekkee xaalis dafa ñëw n'est-ce pas kii bëgg a yóbbu këram kee bëgg a yóbbu këram defee leen ko benn jàkka wala benn jumaa wala benn sant culturel et cetera et cetera ñëpp ci mun a jëriñu boo leen ci defee jàkka ñëpp dinañ mën a julli boo ci defee jumaa ñëpp dinañ mën a julli boo ci defee centre culturel ñëpp dinañ mën a dem di liir di jàngi lu ngeen bokk te mënu leen ko seddoo fexe leen def ko li nga xam ne ñëpp dinañ ci jariñoo lii la wolof wax alal gii du sa alal du sama alal président moo ko joxe pour ñëpp te ñii mënuñu ko lekk bàyyi ñooñu fexee leen def li nga xam ni pour ñëpp mun ci jariñoo ñëpp mun ci jariñoo kon xaalis bii fexe leen def ko mu doon centre culturel même centre culturel américain am na Sénégal centre culturel français am na Sénégal centre culturel allemand am na Sénégal mais centre culturel sénégalais amul Sénégal déglu leen bu baax nag xel rek laay waxee barke alxuraan te ñiy déglu ak ñi xam centre culturel allemand am na Sénégal centre culturel français am na Sénégal centre culturel espagnol centre culturel allemand waaye amul centre culturel sénégalais donc sénégalais yi bëgguñu sax ñoo xam seen culture te ku xamul sa culture perte am na lépp sauf centre culturel sénégalais donc sañu xaalis bi ñuy jox un milliard deux cent un milliard deux cent mun na tabax salle de spectacle hip hop un milliard deux cent mun na tabax euh, centre culturel hip hop ci biir ñu def fa genre bibliothèque hip hop teg fa feuilles yi Rexity Rexity né en en mille neuf cent quatre-vingt grandi à Parcelles Assainies euh, après seen famille dem fee comme nu ngay liiree Tupac lu ngay liiree Biggie Small nga liiree ko Rexity nga liiree ko Gaston nga liiree ko MC centre culturel hip hop salle bu ngand salle boo xam ne daf euh, et puis lépp c'est hip hop centre hip hop nga mun fa liir hip hop nga mun fa liir hip hop.